waaye Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom itam mooy suñu royteef mooy mi nga xam ne moom lañ daan jàng ci gàmmu gàmmu mi nga xam ne moom mooy moom lañ daan def ci gàmmuwaat yooyu yëpp di ay jikko yoo xam ne melal yi yonent yàlla Muhammad sallallahu ay jaar-jaaram mu ne kay fa tarxaa kaw te mbir mu nekk ci roqi ak kamak yeeg seen ambiya yonent yi muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga xéeg boo xam ne ñooy njëkk ak mooy mujj kenn mës mel na yëg mel noonu de mboolem yonent yi ak ambiyaaw yi kenn ku nekk yàlla may na la ab day waaye boo xam ne wane nga ay tarbaax waaye mboolem tarbaax yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy wane ñu ngi ko doon jëlee rek ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax moom mooy seen yoon la ko moo tax mu ne ko xéeg nga xéeg boo xam ne kenn ta eeg yi bu mel ni sa mi mi bi nga xam bi nga erek yow fekkee asamaan yi juróom ñaar lañ yow yaay asamaan yi juróom ñi ñaareel ba ne moom ma nekk ca loolu ko la mboolem yonent yi nag ñun moom mooy ñi ñi jubal ndax lépp luñ daan andi ci ay mojisaat ak kaawteef yoo xam ne dañ ci tax nit ñi dëgëral seen gëm yàlla ne kii jeeral kii li muy def ci yàlla rek la jógee du du lokkaloo xëy na maanaam doomu aadama la ñoom ñëpp ñoo ngi ko daan royee ci yonent bi yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ba mu dëbboo nag moom moo dana indi dara loo xam ne lu tolloo xel moom xel yooyu nga xam ne mooy mooy seen xel yi fa àddina tolloon la ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla Isa kenn ku nekk mu daal di indi leen ab day waay waaye mbooleem seen kawteef yooyu kawteef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare nag mu indi li ci loo xam ne moom moo leen weddam loo ñoom ñëpp ndax su fekkoon ne kawteef yi nga xam ne mboolem yonent yi indi nañ ko su tax suñ ci waxutoon dara lu mu mu day alquran mojise boo xam ne mooy mojisaay mojisaay te ni ko yàlla dafee mooy dafay taxaddi xelam doomu doomu aadama mën naa ne ku mën a def dina def rek day moo tax mu ne mu ne mu ne faatu bi suwat faatu bi asi suwat misri mu mu ne indi leen ba indi leen ay saar saar yu mel ne alquran mu ne in lam tafalu walam tafalu mu ne te kon haati bi ashir suwarin misli wala suwara indi leen fukki saar rek gën gannaaw gi nag mu ne indi leen benn saar rek ci saare alquran boo xam ne nit ak jinne suñ dajaloo ñoom ñëpp ñu génne seen mën waaye ñu ñu indi mel ne alquran wala in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yaatu misli hada alquran la yaatuna bi misli walaw kaana baaduhum li baadin zahiran bàyyi mu ne mooy loolu moo fenloo Quraysh nga xam ne seen itte yëpp liñ ko defoon ci indi loo firnde loo xam ne ci Màkka ci dëkk boo xam ne dëkk boo xam ne fasaaxa ak balaaxa rek seen tiitar mboolem yonent yi yonent bu nekk yàlla daf koy indi mu tolloog jamonoom waaw mu tolloog la xam ne moom moo fa dem kare ngay yonent yàlla Moussa ci Edawa Edawa moom daf ko daan téye aw jamono mu mu doon xet mu daal di moom ab sàmm la xet booba waaye doo gannaaw gi ci la soppandiku mooy sàmm bi nga xëyee dafay di sàmm dafay sàmm jur gi ba jëfas leen ba ko wane firaaw ko nañu ma ne ne ne nañ ko may dale mu dajale mbooleem mbooleem mbooleem mbooleem gisaane kat yi seen tiitar yépp mooy mu jabar moo tax mu indi yonent boo xam ne li mu leen di jaaxalee mooy yoo xam ne dafa mel ni njabar rek day nga xam ne doon jàngoro mu doon ja mu doon jaani jàngoro léeg-léeg mu doon ab sàmm boo xam nag yi ba jabar ba jabar leen léeg-léeg itam su daal di taxawal ko mu doon làmp su demee ca a bopp ba doon baag li ngeen doon ko rek di ko rootee rek day et woowu kay kéemtaan la waaye gannaaw gi bi nga xam ne yàlla yónni na yonent yàlla Moussa ma ak kii aw xeetam bani Israel fukki giir lañu ak ñaar waaye bañ demee ba ma yàlla def ne ko dóoral sa at wi ci mai ci ci ci at wi rek mu dóor ko ci doj bi rek mu daal di génne fukki sew ne ak ñaar bani Israel fukki seen fukki giir lañu naan ñoom ñaar fukki ak ñaar ñoom ñëpp kenn ku ne dinaa am sa doole noonu lay kéemtaan na waaye su ko bàyyi daan wax mu ne waaye lu ko tolloog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sanga booy njëkk booy mujj mu ne moom jàmbar jembaraay rek mooy mooy mooy balanc moom la jël daal di jël ko rek tibb ko ci loxoom mu sàbbaal mu teg ko ci loxo Abubakar mu sàbbaal mu teg ko ci loxo Umar ibn Xattaab daal di sàbbaal ba ñëpp di ko dégg Edward dañ ko doon def ay tag ñu dundal ko ay tag ñu ñàkk ko dundal waaye jembaraay moom dafa ci benn kii benn benn soppandiku waaye mooy wax mu ne loolu moo gën a doon kéemtaan su fekkee ne ñoom moom moo leen yonent yi yonent yàlla Isaa ne dañ ko yónni woon ci jamono boo xam ne booba réew mi dafa bëri woon dafa bëri woon ay feebar boobu feebar docteur rek mooy seen problème moo tax mu kaw tey fii yonent yàlla Isaa daf doon ku feebar sax ku la raxee léegi nga wér ku ku mbës la xoolee say bët gis koo xam ne dee nga sax ci kattanal yàlla su ne la jógal nga daal di jóg rek day loolu ne kéemtaan la waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbooleem kéemtaan yooyu ñu ngi ko doon jëlee ci kéemtaan ca gaalam ga wala yonent yàlla yonent yàlla Suleymaan ca ngelawam la ñoom ñëpp kenn ku nekk jox na la kéemtaan waaye kenn waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi gi dafa dem ba nga xam ne li nga xam ne moom la Mawlaana Cheikh Ibrahim loolu ubbee gàmmu dafay dalee ca azal ba nga xamee ne yàlla dara nekku fi woon lu ma yàlla yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut su fi lépp jógee moom moo fi nekk ne muy kenn te mu amul mu daal di dem ba mu demee ba bëgg ñu xam ko bàyyi bu ne tëjjal li bu njëkk moom mooy feeñ waaye yonentu yàlla ba feeñu ndax amul kenn ku ko seenee waaye ba nga xamee ne bëgg naa dem ay binaakoon nag amul lenn lu dul yàlla loo xam ne mën na cee soppandiku rek day wéy ji mooy jëmam ji moo tax mu jël ci boppam ci leeram def ko muy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya booba moom la ñuy melal tuddee nañ ko xayulaa tuddee nañ ko malakum kurubiya tuddee nañ ko xel mu sell bi tuddee nañ ko xel mu njëkk bi waaye li nga xam ne moom la mu xaq ko nay tuddee mooy xaman xaqiqatu muhammadiya boo xam ne mooy cosaani lépp lu yàlla bind rek day mooy cosaani cosaani mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi doomi mooy matière première bi nga xam ne lépp lu yàlla bind ci àddina loolu ci ci lañ ko jëlee rek day mu ko defee nag mu nekk fa mu nekk bi sàbbaal kenn xamul lu mu doon jaamoo boromam kenn xamul ñaata at la ñaata millions yi at la ndax booba at amul bis amul asamaan amul suuf amul mu nekk fa mu nekk ba yàlla bëggee bind jamono yi nag bind àddina bi dafa def tëjëli tëjëli mooy li li mu leen gën a niroo li misaalam ci àddina bi mooy lu mel ni seet mu daal woon ko boppam soo janoo seetu looy gis sa bopp soo waxee mu wax soo yëngatu mu yëngatu soo ree sax bu ree mag yaa nga fa te nekkoo fa ba mu bëggee wan yonent bi boppam loolu la ko wan wan ko ci boppam rek day mu gis boppam ci boppam mu daal di muy dayob taar dayob mat su fekkoon ne yàlla dina am melokaan kon yàlla melokaan woo lay lay am da ngay muy bindam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax doomu aadama ne yàlla ne ko lu ma bind yaa tax ma bind ko te loolu dara warul ko lu ma ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xaay tax ba nga xamee ne yàlla def na boobu mu bind ko mu nekk nag ca fam nekk ba mu ko bëggee bind ci ba mu bëggee bind àddina bi rek ca yonent bi la jëlee muy tëjëli ñaar ci lañ mën a gisee jëmmi yàlla ji ak nekkaawee nekkaay yàlla bi rek mu daal di won ko boppam muy su fekkee ne nit nit koo xam ne gor soo ko mayee dafay la teraanga dafay am kersa kersa googu mu am ko ci boppam moo tax mu daal di ñaq daal di juddoo ca ñaq woo mooy géej moo tax géej moom la njëkk bind moo njëkk a soqee ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo ëpp te moo njëkk bi nga xamee ne yàlla bi nekkul asamaan ak suuf sax booba arsh ak yàlla gii ci kaw géej gi la nekkoon rek day moom la waka alquran di wax ne wa kaana arshu alal waaye nag ba mu bindee mbindeef mu daa koo nii te daf koo bind ci juróom benn fan te su neexoon yàlla def naa nekk rek mu nekk ndax def na yu gën a rëy li nga xam ne mel li nga xam ne yàlla jëf na ko ci gën a rëy moom àddina ak li ci nekk nii moo ci gën a tuuti rek day waaye loola daf naan nekk rek mu nekk waaye doomu aadama bi nga xam ne moom moo tax mu bind àddina bi moom lay jàngal nañ fiy nekkee moo tax bàyyi di wax ne moo tax lu yàkkamti ca seytaane la jógee waaye yéex ca yàlla la jóge lépp loo xam ne dañ ko wax ci yàkkamti li ci gën a bëri mooy gaaw a sotti gaaw a yàqu rek waaye loo xam ne dafay am aada yàlla lépp lu muy def dafay ndaw dafay tuuti di màgg di màgg li ko dalee ci garab yi gàncax gi ak nit ñi ak mbindaakoon yëpp dafay tuuti doom ji nga xam ne yaay jee ko jur sax suy màgg du ko gis dafay juddu doon lu tuuti loo xam ne ci biiram la nekkoon doom ñeenti weer su juddoo mu di ko gis di ko nàmpal waxtu nekk waaye du gis ni muy màggee sax dafay gis muy màgg di màgg ba ba muy ba ba mi demee ba tolloog moom wala mu suuf ko rek naka gàncax gi nga xam ne moom mu nekk ci suuf si itam baykat bi koy bay waxtu nekk bu xëyee dana dem ca tool ba su ngoonee mu dem waaye ni gàncax gi di màggee du ko gis dafay tootoo rek gis mu màgg mooy loolu mooy kattan yàlla la de yàlla dañ daal di bind asamaan fekk nag ba mu ko bindee daf ne lépp lu mu bind ci kaw àddina bi ay doomu aadama moo tax waaye doomu aadama itam li ko may màggaay googu mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la alquran di wax ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibala fa abayna an yaxna wa ñooñ kaw ak ñoom suuf ñoom ñëpp ñu gàntal mu daal di gaalal ko mu gaalal ko ne ko yow su fekkee ne sa ngërëmaa nañ ki man nangu naa mu ne ko ahan danaa la tuumaal nag mu ne ko moom caag su fekkee ne sa ngërëmaa nañ ki rek man man nangu mu ne ko yow mi nga xam ne yaa nangu examen bii li ma lay décorer li ma lay defalee médaille mooy dama lay def nga mel ni yaay maam yi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax aadama aadama yonentu yàlla Muhammad dafa mel ni doomu la waaye li nga xam ne mooy dëgg-dëgg kay mooy aadama mooy doomu yonentu yàlla Muhammad ndax moom mooy cosaani cosaani lépp ñu def xam ne ñu ngi ko jëlee ca yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fay mu daal di bind ko nag fekk nag aadama dafa dëkkoon ca kaw suuf ba yàlla bindee mi naa ko yooyu aadama def ko xool ne est-ce que anta wa zawjuka janna ba mu fa nekkee nag ba mu soob yàlla mu daal di gaaral ko loola ba mu nangoo mu daal di ñëw indi ko ci suuf nag ba muy ñëw ci suuf fekk nag ca ca aljanna ba muy defar mbir yi dafa jële doomu adama ci suuf moo tax alquran di wax ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum minha nuxrijukum taaratan uxraa suuf soosu ci laa leen bindee waaye suuf sii dem ma nga jógee ci yàlla ma nga jógee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo mooy moo cosaanu mooy cosaanam mooy ñàkk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bindee foo fekk géej jikkoom muy muy palpali di def ay duus duus yooyee moo jur purit daal di jur ngelaw yëngatu daal di jur ngelaw ngelaw la daal di ak purit ma purit dem ba wow moo tax mu doon mu doon suuf suuf soosa ba ay doñ ay ay ay ogg ngelaw li di ko fenqalante mu génne saxaat saxaat soosa nag ci la bindee asamaan si gannaaw gi dana def asamaan yi juróom-ñaar def suufi juroom ñaar bind ko ci juroom benn fan te su ko neexoon daf naan nekk rek mu nekk waaye doomu aadama bi nga xëye moom moo tax mu bind loolu yépp moo tax mu di ko yéexa rek day ba loolu amee nag moom mais moom ba mu demee bay bind malaaka ba mu bëgg a bind doomu aadama dafa ebal malaaka yi israfil ak jibril ak malakul mawt ku mu yónni rek suuf daal di gaan lant la ko ne ko maa ngi lay lent ci màggaay ki la yónni bunt bi ci man cër boo xam ne xam nga dafay dem safara rek mu daal di dëpp ba mu yónnee nag malakul mawti malakul mawti ne ko may itam nga yónni ma itam ci màggaay ki ma yónni maa ngi lay ñaan bul ma ñaan loo xëy damay gàntu ñaan kiyam bi rek santaanam bi rek ba mu delloo nag daal di tibb sa daal yóbbu yàlla di ko laaj te moom gën a lu mu koy laaj ne ko noo def ba yow ñi la jiitu ñëpp suuf kii lan ñu ngàntal mu ne ko may itam dama ko wax ne ko ki ma yónni màggaay kii de ma yónni maa ngi leen tamit ci kooku rek bul ma gàntaloo bul ma gàntaloo li ma sant rek day mu ne ko nag yow ñoom yow yaa leen di delloo moo tax alquran di wax ne minha xalaqnaakum fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra suuf su nekk kenn nit ku nekk lañ ko tibbee ca suuf soosa du dee lu may dellu na ca suuf soosa mu dellu su suuf soosa delloo ca delloo ca ca géej ga géej ga daal di dellu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delloo dellu ca fi nekkam borom bi nga xam ne moom moo ko bindoon ca ca leer googu rek day muy abat rek loolu waaye mu ne buñ lu mu yàgg yàgg àddina bi lu mu ma wëlbatiku mu ne dana dem ba nga xam ne azal dafay dellu ca abat waaw mu ne mu ne su boobaa daw wéetaayu rëy ndax dara du fi nekk lu nekk dafay dellu ca lam jóge woon rek day doomu aadama yi dellu ci aadama aadama dellu ci yonente yàlla Muhammad ci dellu ca leer ak yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi kooku daal di dellu ci ki nga xam ne moom la moom mi nga xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut te su fi lépp jógee moom moo fi des mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu mooy mooy yàlla mooma ba mu na li nga xam ne mooy mooy kii mooy feeñ waayam bi nag mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax Baay di wax ne yonentu bi ak yàlla dañoo niroo niroo niroo ba nga xam ne kenn mënu leen a xàmme li nga xam ne mooy li leen di xàmme daal mooy kii moo maye kii lañ may rek day yàlla moom yëpp waaye ba maye yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam desewul dara lu may yàlla am gi nag moo tax ñuy moo tax nag lépp ci wér bi lay moo tax ni nga xam ne wérdu tiyaan ci la taxawee mu ñetti ponk yi nga xam ne astaghfirullah ak salaatu nabi ak laa ilaaha illallah yépp mi ngi mi ngi muy aju ci li nga mooy mooy faj soxlaay doomu aadama mooy mu kaffiraatu zunubi parce que astaghfirullah bakkaar lu mu rëy rëy ci yàlla astaghfirullah lañ koy faatee doomu aadama ak ñi ak moromam suñ tëralee seen yoon ku xëtt yoon dañ lay tëj wala ñu alamaan la yàlla nag du la alamaan ndax mënoo jëlee dara ci lu may ci yàlla rek moo tax moo da ngay sa njàng rek daal di tuub astaxfirullah soo ta soo ta baraloo yàlla yàlla ba set ci bàkkaar moo nga julli ci yoon bi nga ne nag daf koo may ba nga xam ne mboolem xewal yi ci kaw àddina bi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci lañ ko jëlee nga dagg ko ba mu gërëm la daal di ubbi la bunti ba dara doxul sa diggante ak sa borom mu ne sa ba yaa ngi nii sa borom a ngi nii nga daal di tudd ko ñaan sa bopp moo tax astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illallah Cheikh Ahmad Tidiane nit ñi di ñu wax naan ñi naan ñi naan Tidiane laa ñi naan du duma Tidiane ñi naan leneen laa waaye wér de buñ mën a askan kuñ ko ak kuñ ko mën a askanee ca la muy dellu mooy su fekkee ne jullit nga dëgg dëgg dëgg dëgg muy mënoo ñàkk a doon Tidiane ndax li nga xam ne moom moom moom la ñuy def ci tariqa Tidiane amul benn ku nekk mën a nekk ci lislaam كن من تنك في الإسلام باي أستغفر الله كان من تنك في الإسلام باي صلاة على النبي صلاة على النبي ما خمن مم كوكو موي سدل بيب بيب بيب ما يجي على النبي يوم عندي كنت أقول باي منه نيجا خمن ده يجي في الشيء اللي بيجي فيه موي ده يجي مني ده يجي نيانا ليون تبي باي منه واي نيانا يكون ده يكون واي هم كو خمن أمن لب كنت دارم دار يلا كوه لك أبو بكر واي سو أمون بكر سبحان الله يوم عندي يلا بالان سيون يلا يرم سيون loolu koy def mel ni wax gi yàqu la waaye dañ ko koy wax rek nekk kañ ko ndax mayuñ ko waaye dañ koy woyaat rek day soo mu ne laay laay la laa mooy caari lislaam kenn mënta nekk ci lislaam ba pare na di laay kon ñett yooyu ki nga xam ne jël na wérdo ak ku jëlul wérdo yëpp su fekkee ne mu ngi ci lislaam dana ko def su ko yëgee ak su ko yëgul ki nga xam ne jël na ko nag kooku kooku moom engagement la boo xam ne même ko defee am pare sëriñ bi ko ko jox moom itam mboog mooma ci am su demee xam fàttali na xamatuñ ndax ñu koy def waaye ki nga jaay kooku moom bi nga jaayee nekk sa borom waaye nag yow ki nga jaayee da dëgg-dëgg kooku di nekk rek man fa nekk yow te soo jaayanteeg yàlla dara dafay nekk ñi nga ñi nga xam ne nekkuñ ci tarixa bi ñooñu ngi def naam li tijaan yi def soo mën def rek soo mënul engagé woo dara waaye ki nga xam ne daf koo engagé rek ba nga xam ne léegi fardu fardu ay ni la daf koy def ni nga xam ne noonu la ko julli war a di toog tak tak tak julloo nooy def dangay ngay fay ba pare door a fay takkusaan wér de wi tamit am na loo xam ne dañ koy def subaa ngoon am na loo xam ne dañ koy def benn yoon ci bis moom mooy laazim am na loo xam ne benn yoon ci semaine loolu mooy xadratu jumaa rek day xam naa détails yi muqaddam yaa ngi fi ni ñoom ñëpp danañ danañ ko fàttali seen i ñu rek waaye dañ koy wax rek ci buntab fàttali bu buntab sa bi ndax yàlla moo wax ne wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniina dañ ko tëkkuru ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñoo boole ci xeet yi nga xam ne moo gën ci xeet yi tànnal ñu yonent bi nga xam alquran karim ca biir loolu ñu am benn xososee boo xam ne dañuy xam ni li alquran ñu wax Cheikh Ahmad taala anhu andiwul dara loo xam ne moom moo ko andi ci boppam waaye dafa mel ni lii dana docteur bi sa demee ca docteur ba mu seetal la ba gis sa feebar daal di bindal la garab gam la bindal ordonnance ba mu la bindal soo demee ci pharmacie ba du caagee ne moom moo ko def waaye yow li ngay tawat garab gee koy faj yonent bi dem saabatiyan eh, yi dem daf ñu woon tegtal ci alxuraan naka koy jëriñoo rek day ba amee nag loolu xam naa luñ ci doon boros rek la pour sante ko yàlla waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam comme guddi gi dafa jeex mi ngi ci ci amul fii ni amul fii ni mooy Abraha al Yamani benn buur woon boo xam ne moo doon buur Yaman nekkal fa Kaysar bu kooku nag moo ilifoon Makka ba nga xamee ne yaaraw yi dinañ koy wër Kaaba gi nga xam ne moom moo fa nekk ñuy def aji ndax aadama bi nga xam ne moom moo njëkk moom moo njëkk mooy mooy xitaani doomu aadama yi aadama moomu aj na ñeent fukki yoon ñeen doon war ñu ne aadama dafa guddoon moom benn nga war a attanu ko waaye ca Hind la doon wàcc ba leen yàlla wàccee ca ñuy wàccee ca ca ca aljanna ba mu wàccee ci suuf ind la dal foofa nag la daan doxee di ñëw ba Màkka muy aj aj na ñeent fukki yoon moo tax kaaba gi ni mu toll nii la tolloog moom ca kawam ni ñuy waree kaaba gi bindeem mi naa ko ne suuf ni ñuy waree kaaba gi ñi ca bayti maamuur itam mi naa ko ne ci kaw ñoom noonu la ñuy waree bayti maamuur rek de yàllaa ko defal tabax bu njëkk bi malaaka yi ñoo ko tabax tabaxam ñaareel bi aadama moom moo ko tabax tabaxam ñetteel bi Siise moo ko tabax tabaxam ñeenteel bi yonent yàlla Ibrahima moo ko tabax moom la ñuy nettali moom ba nga xamee mu yonent yàlla Ibrahima yàlla yàlla nga laal nga ñu nangul waaye yàlla nga jëlee doom jox alal ci dëkk bi la jógee rek muy oote jëm ci yàlla muy oote yërmaane jëm ci yàlla nekkee kon yonent bi moo taxoon naan man maay ñaanal Aadama ga waaye man maay delloo Isaa ba nga xam ne moom moo kon ba muy jeexal ne moom bashirukum bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmadu moom mboolem yonent yi yàlla mës na yónni benn yonent du may jaayante nga ak kenn ci ay ab tam ab toppam jeex na ñoom moo tax contrat boobu benn yàlla mës na yónni benn moom mooy alxuraan di wax ne. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أخرتم وأخذتم على ذلك مسري قالوا أخرنا قال فشلوا وأنا معكم من الشاهدين يلا ناي دفع الكونترا مولم أن خاين يوم يوني رك يونال دي خاين يوم ñoy jotal li أن la yalla bëggé ndax doomu adama su fekkone mom rek la ni yàlla bëggee ñu jaamu ko mënuñ koo tanale ndax doomu aadama li mu gën a bëgg mooy su fekkee ne góor la bëgg naa dund waaye su dundee bëgg na jabar su amee jabar bëgg na doom doom jooju li tax mu bëgg ko mooy su dee moom mu daal di wutu ko rek su fekkee ne jigéen la bëgg naa màgg waaye su màggee bëgg naa am jëkkër moom itam am doom waaye li nga xam ne doomu aadama moom la gën a bëgg yàlla moom la gën a bañ moo tax mu ne danaa bale mboolem bakkaar ba mu des ku ma bokkaale yàlla amul ndey la ma yële wala mu yulal wala mu yokk loolu ku baax amul kenn amul amul amul denn noor te itam kenn juru ko te jurul kenn rek yàlla moom rek boo tax su fekkee ne doomu aadama bëgg naa xam ni yàlla bëgg dëgg dëgg dëgg ñu jaamu ko mënu ko tànnale boo tax yërmande yàlla il faut mu ñëw ebal koo xam ne mooy ñëw ci nit ñi daal wala li leen li yàlla bëgg ñu ko jaamu war a ne su yónnee woon malaaka ñu ne ko ñemoon malaaka su yónnee woon jinne ñu ne ñun jinne li muy def nii ñun mënuñ ko waaye dafay yónni koo xam ne dafay mel ni nit te du nit moom la way yi doon wax léegi ne Muhammad basharun ba nu wëkk ne ah ko gëmee yàlla daf koo defee mu mel ni am yërmande ndax moom ma nga jógee ma nga fàttee bàyyi mu ne lu fàttee boo ca péer yàlla ba day moo nekk ci biir di dox di lekk di mel ni dem di naan ndax bu jàngal ñu ni nga xëy na yàlla bu gën ñu topp ci kawam moo tax ba muy génn àddina nee na bàyyi naa leen bu ngeen xam ne cat lii ma ngi ca loxo yàlla cat gi ci sa mën ca mën cee mën seen loxo su ngeen ko bàyyi du ngeen réer mukk te du ngeen alak mukk dina ko ko fukki loxo bu ne mooy téere bi yàlla fi na yonent yàlla Muhammad téere bi mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy indi alxuraan moom ay yéen fukkaat yàlla ko dara defu ko ci moom ndax mu turam sax mënu koo bind bañ ne ko jàngale dem dem na jàng ma doon lu ma jàng waaye yàlla bëgg a setal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mënta jàng mënta dara mu indi ci moom téere boo xëy na moo lottal mooy njëkk ak mooy mujj ne leen su ko mën a su ngeen weddee alxuraan yi indi leen alxuraan yu ngeen du ngeen ko def mukk laa dina wala indi leen fukki laaya mu jigi mu ne indi leen ñetti aaya indi leen benn saar rek benn saar inna a'taynaakal kawsar saar bi gën a gàtt ci alxuraan la ñetti saar rek moo tax ñetti saar yu ñetti ñetti ñetti kéemtaan moo tax benn benn benn benn saaru nekk ci alquran ñetti kéem daan la kon mboolem alquran juróom benn fukki junne ak juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn ci ci laay la rek day mu daal di ñëw doon alquran ba mu ñëwee nag ñu andi ko ci ci arab andi ko ci làmmiñ woo xam ne foofu mooy capital yi fasaha ak balaaxa mu andi ko nag neneen leen mënu leen ko fa illam tafaalu wala tafaalu du ngeen ko def mukk laa dina day mu indi ko ci koo xam ne mën ta bind turam ba mu ko defee nag ni yàlla yokk yokk ci yërmande yonente yàlla Muhammad sallallahu jëm ci mboolem ñu nekkoon doxam bi moom dundam bi sharia su doxee sharia la su toogee sharia la su santaane sharia la su su teree sharia la luñ def ci kanamam bu noppi sax sharia la mu daal di bee dafa mel ni de mooy théorique bi mooy pratique pratique bi nga xam ne saxaaba yonent yi nga xam ne ca jamono yonent ñi jàng waaye ni ngeen doon tuddee alquran noonu lañ ko tuddee rek day ba alquran yi daal di mu ne na inna haadha alquran yahdi lillati aqwam moo tax mu yàlla ne qul la in ijtamaatum insun wal jinnu ala an yaatu bi misli haadha alquran laa yaatuuna bi mislihi walaw kaana ba'duhum li ba'din zahiran mu ne di moom alquran yooyu nga xam ne ma nga jóge ci yàlla yàlla andi ko laaya yooyu ñuy di ko jàng nam wàcce woon ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba léegi noonu موم القران دي واخني انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون موم يالا موكو اندي تا موم موكو غانال بوب مولم يونتي يغا خاني جيت وون ناي كين كو نيك لا نغا اندي وون تي اي معجزات سليمان تا غيلاوم لا ولا موسى تا اتاوا ولا فو ولا يونتا ولا يونتا لا عيسى تا خم خم ما خا خني مو دون فاج فيبر yooyu yëpp ay wax na yoo xam ne dañ koy dégg rek waaye alxuraan yi nga xam ne moom la sa yoon sa nga way njëkk way mujj andi woon moom ba léegi na mu wàccee woon ci alif laam miim zaalikal kitaabu ba ci minal jinnati wan naas booba nag bay wàcc yoon bi wàccut ci tartib bi nga xam ne noonu lañu indee kaamil bi mu dalee ci alif laam jeexee ci xulaa wulu bi rabbil naas waaye nag booba daf ko daan andi par jumla ni sa nit ñi saaba dañ daan toog ci yoon bi rek gis muy muy muy yëngatu ba mu di karkari ba mel ni dafa liw bay ay tànk muy dëgg ay bëñam ndeke booba ay la alxuraan ay wàcc ci moom su wàccee rek mu daal di bind mu daal di wax ko ñoom ñëpp ñu daal di déglu ko waaye nag bi nga xamee ne yonent yàlla moom sallallahu alayhi ko indi nag li ci des nag loolu mooy mbind mi ak wax ji waaye nag bi nga xam ne moom mooy jëf ci nag moom mu defee ko rek day bu fekkoon ne am na foofu rek kon ñu bon na ñun ndax kon ñun dañuy wax ne yàlla yónni ci ñun kenn waaye wala dañuy wax ne yàlla yónniwul ci yónniwul ci nit ku ñuul Afrique yónniwul ba kenn waaye yàlla ci ak maandoom moo tax yonent boobu nga xaye ni nga xam ne noonu la wàccee ni root ak ni daan wàccee yonent bu nekk dañ ko daan yónni ci aw xeetam ci am ci ab dëkk ci aw nit yoo xam ne su jeexee rek bu jeexee am nag moom rek day beneen yonent daan di ñëw yonent yàlla Muhammad sallallahu sa wasallam nag dañ koy yónni ci ñëpp ak fépp ba faw moom du fi jógee mukk te moom dundam bi juróom benn fukki at ak ñett la kon nag su fekkoon ne dafa juddoo ci Màkka dee ci Medina gannaaw juróom-benn fukki at ak ñett su emoon foofu kon ñu kon ñu kon ñun danañ gëlëm danañ jaaxle ak ngëlëmaane ndax buñ xam buñ cay waaye téere bi nga xam ne moom yàlla moo kii ni góor yi yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo sahaaba yi xulafaa rashidina ñoom ñoo utu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu fàddoo ba mu tamee nag awliyaa yi ak saalihoon yi ñoo ñëw di ko wàcce alquran sax wax ne ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi képp ku nekk nag yaa ngi tasaawee ci ab gox dem di dem di jotal lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu ko bindee ba mu ko bindee ci amal fii dafa gisoon nit ñi di aj kaaba gi wax nañ ni yonent yàlla Ibrahima moo tabax moom itam mu tabax tabaxal ay juróom ñu koy tabax tabax yi ba mu paree amaa li xatu yi tabax daal yi tabax nañ ko juróom yi tabax nañ ko Abdoulaye ibnu Zubayr tabax tabax am juróom-ñeenteel bi Hajjaaj ibnu Yuusuf nag moo tabax tabax ak fukki at yi xëy moom moo fa nekk ba léegi rek day dem di fa waji ba nga xamee ne nit ñaa ngi dem nag di aji màkka aada la woon ci mboolem diine yi nga xam ne jiitu nañ yi nga mu ne moom moom buuri Yaman bi nag mu ne ñii dem fii duñu jëm ñoo ko am néeg boo xaye yi di ko wëri mu ne dinaa tabax néeg boo xale moo gën a ci aj si ba mu jëlee néeg lépp lu mu am ci man-man ak urus ak xaalis daal def ko ca ba mu rafet benn yaaram daal di ñëw bëgganti nga ay cabinet rek daal di eh, taat ne ko def nii sama tabax bi ñëw kii kon nag man danaa toj seen néeg bi nga xaye moo gën a fort ci ñoom rek day daal di jël benn armée boo xam ne ay ay ay ñay la ko jiitalee ñëw na dafay toj ci màkka ba mu ñëwee ba jub màkka nag ma nga xam ne su subaare mu mu dugg màkka mu daal di campé foofa ba mu campé foofa abdul mutalib bi nga xaye mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp koo xam ne yàlla dafa wax ne mu ne leeral yonent boobu nga xam ne ba yàlla bindee aadama aadama su daan dox rek malaaka yi ak bi nekkoon yi di jox topp ci ko mu ne yow suma borom ñii may topp liñ may toppee mu ne ko leer gi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind lépp lu ma bind muy xam muy yonent yàlla moom moom laa denc sa gannaaw bi mu ne waaye nañ bu ko defal suma kanam ndax ma féete ak moom mu ko ko nag ci weew nga xam ne mooy baaraam sandikaay bi mu ne mu ne mbaay mu ne lu tax ba nga xam ne dénkoon nañ xaqiqatu Muhammadiyya ca weewu aadama woo mu ne moo tax we am na xusuusiyee boo xam ne suura seytaane ndax ay ree soo noo soo ko xoolee rek daal di wegu yonent yàlla feeñ ci daal di ree ji daal di taxaw mooy nag mu ne kon moom nag am na ñeenti saaba yoo xam ne ñoo tàggoo moom mu jël mu ne lee rek Abubakar Sadiq daal di def ko mu ne pëlët ci baaraam sànnikaay bi lee rek Omar ibnu Xattaab mu def ko ci baaraam bu gudd bi baaraam ne xëy moo ci topp mu daal def ko ci def ci lee rek ah, Seydina Osmaan ibnu Affaan ba jël leeral Seydina Ali ibn Abi Talib daal nañ ko ci baaraamam sax xale bi ne ko ñooñu moo tax gannaaw bu yonent bi fàddoo ñooñu ñoo dox ci ñooy xulafaa raasidiin seen gannaaw nag wàll yi ak yonent yi yonent wàll yi ñooy ak olamaa yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ci arab ne olamaa ummati ka ambiyaa bani Israayil borom xam-xam yi yonent yàlla jamono yonent yàlla moo mat foor nañ foor boo xam ne mi ngi mel ni foor foor ak yonent yàlla ci jamono yonent yàlla yonent yàlla yi jiitu woon moo tax ba yonent bi di rañaan di dem ca kaw ba mu demee ba ci asamaan juróom benn foofu la fekk yonent yàlla Musaa mu ne kan la ñu ne ñu kan la mu ne Muhammad Jibril koo àndal mu ne Muhammad yónni nañ ko ñu ne nañ ko ñoom ñëpp kenn werante wu ci ndax xam nañ ñoom ñëpp xamoo yàlla waxoon na leen ku ne ku joxe sa message bala ngaa pare da nga wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ñëw ci mujj ak jamono su ma ko fekk woon naa jaayante moom ba mu ñëwee rek mu daal di mu ne marxaban yonent bi tedd bi daal di nuyu ko ñaan koy ba mu dëddee di dem asamaan juróom ñaar foofu nga xëy foofu ne kawetu mu ne Jibril kii wax kan ne ko mu ne ko Moussa doomi Imraana mu ne ko lu mu wax mu ne ko dafay xuloo ku muy xuloo mu ne ko borom moom Moussa mu ne ko yàlla waxoon gisoo naa ca àndoo ju nëbb ca muy lawhul mahfuus ne am na ab yoon boo xam ne seen téere seeni i gune rek dañ koy mokkal ci seen dënd mayal loolu ba ni ba ni Israël mu ne ko loolu bu ko jege loolu Muhammad ibn Abdullah rek boo ko xelloo mu ne ko gis naa ñoo xam ne benn weer ñu dama leen orat dapat mayal loolu ba ni Israël mu ne ko loolu Muhammad moo ko moom mu ne ko mu ne ko léegi léegi gis naa ñoo xam ne seen asaka dañ koy lekk ca jamono yi Israël ñoom asaka ji nga xam ne dañ koy génne dañ koy jël rek daal di taaj ko ca mbedd ma sallu weer ñëwee daal nak ko rek ñu xamé yalla nangul ko su ko laa dara laa ñu xam ne nanguñ ko xeetu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nak mom moom seen a sarax ñi oom dañuy genn seen sarax daal di jox ko ñi oom loolu ñoom ñëpp ñoom ci gëna a yàlla ba pare lekk ko rek day mu ne ko mayal loolu bani saar mu ne ko ya musa inni istafaytuka ala naasi bi risalati wa bi karami fa xud ma ataytuka wa kun min ash-shakirin ay yow musa dafna la ngay kelim wax ak yàlla mu baasiyatan bokk na xaar du bi du wasita def naa la ngay yonent bokk ci ulul azmi mu ne ko nag mu ne ko doylu mu ne ko naa doylu naa fekk def ne ko tee ngaa jël sa yonent te boole ma ci xeet boobu mu ne ko def naa mu ne doylu naa doylu naa doylu naa kon ñun ñi nga xam ne xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay gën ci xeet yi nga xam ne yàlla bindal na ko doomu aadama yi lu ko waral nag taamiruuna bil maaruufi wa tanhawna anil munkari mbooloo yu mel nii ñu ngi ko def tàntal ko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di jëmmane ko Cheikh Mouhamad Nazir bi nga xam ne moom itam mu ngi ko royee ci baayam la baayam ñëw defoon fi ñëwoon fii andi ko fii ci neema mu mel ni démb mooy tey bu ko bàyyi di tëddee Nazir day booba xamuñ ne am dina am tudd neema waaye nag mu ñëw fii ci tànnee fi yàlla mu daal fi fekk fii muy neema neema di xéewal ki xéewal bi kiñ ko jox muy naziru mu kay mooy naziru umma muy mu ñëw fii rek fàkk fii fay fa def fi fàkk boo xam ne fay la ca fay maamam ya ndax maamam alaaji Abdoulaye nga xëy mooy way juru Mawlana Cheikh Ibrahim ba nga xamee ne tubaab yi xatal nañ ko ci diineem ndax dañoo bëggoon ay doomam yi nga xam ne danañ mag daf leen armée ci armée française bi mu ne moom moom loolu bëgg ko toog na ab diir boo xam ne ñoom ñi mat góor ñëpp su xëyee wax nañu ñu dem ci àll bi ba ngoon jot ndax boobu tubaab yi dañuy wër di ñëw di ñëw ku mat góor ñu jàppale yóbbu ba ko yëf yi sàppee nag mu daal di dem gàddaay daal di dem ci angale bi ndax mu mu wàcc loi français yi nga xam ne dañu leen di jàpp mu génn ca loola ba mu ñëwee àddina bi yëpp Banjul Gàmbi la ci topp tànn ñëw na fi ay yoon yoon ñëw na dellu ñëwaat dellu waaye toog na fi diiram lu mat fukki at yoo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima woon na ne mboolem doomi Alaaji Abdoulaye yi képp koo xam ne moo la mag rek ci ay doomi maam rek fii lañ juddoo kon kon ñun ñëwuñ ci kër boo dëkk boo xam ne dañ faa jëgaane waaye dañoo ñëw ci suñ kër waaye Cheikh Mahamadou Nazir mi nga xam ne moo def lii dem daal jëmbal fii bàyyam jëmbal fii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne moo wax ne ku la defal lu baax fay ko lu baax soo ko soo soo lotta ci loolu nag mu ngi la njëkk ci ñaan ak yàlla ba nga xamee ne moom abraham yamaani mooma te te def na loolu ne dafay toj kaaba gi ba mu tojee kaaba gi ba mu ñëwee ba jub màkka mu daal di campé nag fekk abdul mutalib nga xam ne mooy maam yonent yàlla moom ndax mooy ab bàyyi abdoulaye moom amoon na ay gëlëm ba nga armée ba daal di jëw jël ñaar jël ñaar téwéen gëlëmam daal di jàpp ko mu daal di jóg ne moom dafay dem akki bur mu jox ko ay boobu ko si ba mu ñëwee mu daal di yund ko cee tànt bañ ko defal seen leer gi nekk ci moom muy leer goo xam ne mooy leen mu koy jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne kaw teef kii màgg na di kii day ni ma ko gisee xëyba bi ak ma ak ak li nga xam ne mooy feeñ ci moom ñi ma ma ko tàcc du toog suma gàngu naay bi te man nag suma gàngu naay du ma ko bokk kenn xanaa kon kay na ngeen ma laalal suñu rek ma ñëwee ma toog ceeg moom rek day ba mu ñëwee mu daal di tatagal ko ne ko shaybatul hamdi marhaban luy sa tànk mu ne ko man day dama amoon suma ñaar téeméeri ñaar téeméeri gërëm yoo xam ne sa sa armée bee ko jàpp mu ne ko yow yaa sama yaakaar bu ma la séenee dama laa màggaloon màggal ba moo tax ma la toog yow ci suuf waaye ma foog ne néeg bi nga xam ne mooy seen néeg bi ngeen gën a foog ma ñëw di ko toj jaaxle woo loolu te yow yaay sanga Quraysh xanaa nga nga may ay gërëm mu ne ko néeg boobu am na borom borom moom ne moo koy garde boppam waaye man gëlëm yi laa mu jox ma samay gëlëm mu ne jox leen ko ay ma tojee màkk di boole yëpp nangu waaye ca suba sa mu daal di jël daal di armem booba nga xam ne ay ñay lañ moom la alquran bi neti yàlla fekk na Abdul ba mu ñëwee wax na mbooleem waa Makka ñu génn dem génn dëkk bi bàyyee ko ko ba mu ñëwee ba jub Kaaba ga mu gën a ci ñaay ma nga xaye moo ci magam moo jiite la tudd bu jubee bu ko jubalee ci kaaba bi mu bu ko jubalee feneen rek mu daal di nangu waaye ba mu forcé ne dañuy daj toj kaaba gi rek day yàlla yónni ay picc yoo xam ne dañoo ñëw ñëpp ñu bu nekk yaa ngi sax benn pepp mel ni pepp dugub kooku sànni mu dal ci kaw bopp bi rek daal bi nga xam ne la waroon moom la alquran di nettali alam tara طير الابابيل ترميهم بحجاب من سجيل فجعله كاس من ماكول اقبل لنا خمنا ci leena yoni picc yi ñew day am raxa ak ak ak la ba ma yaram nak amu yoon at at mu nekk rek la fi la ci gën siiw rek moom la ñuy def moom la ñuy moom la ñuy tuddee at moom moo tax muy amal fii bi ba loolu amee juróom fukki fukki fan ak juróom ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di judd rek day moom sanga mooy njëkk a woy bu jël day ca xëy ba ni keneen sa moo xam ne aminatu mooy ndeyam bi ndax mar mooy maam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko dégg jamee rek ñu daal di gëne la ci diwaani wala yi Jibril daal di ñëw ba mu ñëwee daal di dóor mbaggam rek ci suuf ndox daal di ball di ball di ball ba nga xam ne mi ngi bëgg a nekk gox boobu yépp mujj ñu naan ko zam zam zam zam zam mooy dalal dalal dalal ba léegi ci la zam zam dalee day muy yonent may yonent yàlla ba nga xamee ne bu nekk dem na ba am fukki at ak ñeent fi doom di gën a neexee bàyyam yàlla bëgg a examen yonent yàlla ibrahima ci bëggee na boobu ne ko reyal sa doom ji moom itam mu ñëw ci doom ñi nga xayal mooy ismaila ne ko yaa bu ne yi indi yaa fi mën a amee ni yàlla dafa ko fangul maa laa tara doom doom sama man day sama borom digal na naa rey wax ma ci saxaar mu ne ko yaa abati fa sa tajru insha allah wa saabirina eh yow bàyyi sama dafa li ne sa borom wax bul dangi-dangi sax na soo may rey na nga rey na teg sama bëri ndax bu i sax bu ko waxee dangaa di ngat ca jabaru saba fañ daan turee seen day la foofa la ko xaar jibril daal di ñëw andil ko am xaaf boo xam ne ca aljaana lañ ko yarawane day ne ko sa borom ne nga andi nga bu rey bu rey bu rey bu ne rek ci la jaaree tabaski ba léegi moom mooy xaaf moom mooy bëri moom mooy tabaski moo tax diine di indi woon yi ko jiitu woon la ca baax daf ko caa bàyyi woon nag ren la ca leen xamee dafay yàq dafay dafay indi bokkaale ak leneen rek daal di ko jàppee moo tax tabaski moom ak moom ak diine lislaam ndax ca diine yonent yàlla Ibrahima la bokkoon waaye diine yonent yàlla Ibrahima itam ba yonent bi di deewee borom ca daaru Xiraa te boobu dara wàcce ko ci moom ci waayu rek day. gisoon ci diine Ibrahima moom la doon gëstu rek day moom la doon jaamu boromam rek day ba loolu amee nag ñoom ñoom ñoom Abdul Mutalib boobu itam ba nga ne misal la su amee fukki doom yoo xam ne fi ma dañu topp ko dana ci rey kenn jaamu yàlla ba nga xamee ne doom yi mën na mu bëgg a jëlee nag mu tëddee jiwén si daal yow ko ne ko Abdul Mutalib sa borom ne ko sam sam seen sa borom ne mu ne ma xaar bi a suuf ci màkk ko ba mu uutee saako ba mu tëddee loolu na sa mu uutee sa ba ma utal yëkkëwul tey gën a suuf ci màkka ñu andil ko mu ne ko ne xeeb na te ne gàtt ci yëkk mu daal gën a suuf ci màkka ñu ko ko mu rey ko boole ay saraxam ba mu tëddatee xaatim nga daal ñëw ne ko Abdul Mutalib sa borom mu ne xeeb na gëlëm mu ne ma jaaloo ko gëlëm man rey naa gàtt rey naa naa rey naa rey naa yëg rey naa gëlëm mu ne ko ne sa ga nga waxoon ne soo amee sa fukki doom yi dañ ca jaamu rey kenn jaamu bu mu ne nga compter sa doom yi mën nañ moom ak Abbas mu ak Mutayib moo jur Jaafar moo jur Abu mi alquran di xas moom moo moom bi nga xëy mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Safiyatu ak Aatika ñoom ñaar ñu doomu yooyu ba mu demee nag moom itam mu daal di wax leen li ñuy waxee taa yi tamit delloo si boppam mu ne man kat suma borom damaa jaayantoo rek moom ne su ma amee fukki doom naa ci rek kenn ñu ne ko dafa leen sa borom wax mu dem ci kaaba ga boobu nag dañoo am ay bant yoo xam ne dañ koy dugal ci muusa daal di bant yow la du yow bind tur yëpp bañ woon tanee mu dal abdoulaye fekk abdoulaye nag moo am mooy seen weeru ba dal ndax leeram yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi feeñ ci moom rek day mu ne ko dangaa juum defaat ko mu defaat ko mu dal Abdoulaye mu defaat ko ba mu ñett mu mer nag daal di nga yéen ci jamono Asaas romb mu ne man kat damaa jaayante nag suma borom ne su ma amee fukki doom dana ci rek kenn nee ko jooju aada ju bon soo ko defee rek képp ku fukki doom la ñu jàmm loolu du am mu ne suma borom laa jaayante ne nee ko moom caag waaye loolu duñ ko nangu waaye mu ne keroog rek la Quraysh mos a def lu baax nee ko mu ne lu may def. ñu ne da ngay dem ca buxaaba mu atte da ngay dem ca buxaaba ba mu atte leen bañ demee nag buxaaba dana da ngay ana ba bant bi dal da ngay koy teg teg fukki gëlëm suñu sànni wantale su daree gëlëm yi ngeen day gëlëm yi su daree xale yi nga xam ne sa borom xeeb ñu taxaw abdoulaye daal bantale mu daal di yokk fukki gëlëm mu dal abdoulaye mu yokkaat fukki gëlëm bant bi nee nañu di daal abdoulaye ba mu mat téeméeri gëlëm dañ ba mu doon taxaw dem ca dem ci gëlëm yëpp ñu ñaareel ñetteel mu ne waaye kii moom laa joxee sama doom yi nga xam ne képp ne yaa ngi ci a may daal di am fukki at ak ñett suy dox rek jigéen ñi di ko doxalu di ko doxalu eh Abdoulaye ka daanu ci man benn yoon rek may téeméeri gi damay yëkkati woon jox ko mu daal di ñëw moom la Mawlana Cheikh Ibrahima di nettali ci xasida boobu nee na am man xaraam wu fan man noonu du noonu mu ne ko man Abdoulaye am naa def lu xaraam moom dee ko gën a booba Abdoulaye nekkul ci benn diine waaye liñ ko wax noonu yëpp nee na moom du dee ko gën a dee moo tax nag ba nga xamee ne jigéen ñi sonal nañ ko mu ñëw ci bàyyam ne ko man kat deewee sant liggéey ci kër gi ndax su ma génnee rek jigéen yi ñu mën na ko defee mu daal di leen daal di defatal ko aminatu fekk nag bu xaabaloon ba mu ca demee mu daal di dem di ko ndokkeel ci guerre boo xëy dañ ko mu daal dem di ko ndokkeel ba jaay mu daal di xool ne soxla naa la waxtaan mu ne mu ne bii ku ko jur mu ne ko man mu ne mu ne mu ne ko mën naa laaj léegi ne ko soxla naa waxtaan lu mu jox délégation yi jox ko fukkam ne ko nag yow ndax am nga jabar mu ne ko am naa jabar waaye mu ne ko ndax ci benn histoire la bokk mu ne ko déedéet mu ne ko gis naa ci sa loxo day yor ndaar bu gis naa ci sa loxo caax kii kii wuyu bu yor ak yooyu mu ne ko bul wax dama lu ma neex waaye bu binaa bu binaa leeral mu ne ko soo takkee ci beneen bi war a def yonent bi ne xëy na moo ne si yooyu yi taxaw nañ juddoo yow yaa jot maamam waaye ci beneen bi war a def la bokk la ma mën a bokk ba mu ñëwee nag moom mu daal di takk xaalatu xaalatu ak Aminata ñoo bokk day bàyyi mu takkal xaalatu boppam ba nga xamee ne am naa ñoo bokk loolu yeneen baajo waaye nag la mu ko waxoon rek moom moo jur doomi am xaaral bu ñu taye mooy magi aminatu moom mooy jur maami dawlatu abbasiya amoo yi ca ca ki nga xam ne moom mooy moom ne mooy aminatu itam moom moo jur saga mooy ñëkk mooy mujj mu ne dara waxu woon ma ne yow biir laa lu may ba ma ko ëmbee daal gis naa ne ci weeru rajab weeru rajab yàgg nañoo indi teraanga ñi ngi ndokkeel ñëpp ndax ñu ngi weeru rajab taw na weer woowu nga xam ne rañaan wacc la feeñ te la yàlla jox mboolem yonentu yàlla yu mos a yónni dafa leen di booleeg xaati wala mu yónni leen boole leen jibril waaye nag moom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ji nga xam ne mooy diine li nga xaye moom mooy bopp bi muy julli loolu moom koy jox dafa jël indi ndaam boo xam ne uti uti naag daa bay jël li leen sangi sangi nga jibril nga xaye mooy sangi malaaka yi mu daan jël ko mu ràññaan mu dem a dem a dem ba ca asamaan juróom-ñaar jibril ne ko fii laa mën a mu ne ko sang kenn du ànd ak sa xarit ci tukki mu mu jafe nga di ko bàyyi moom kenn mu ne ko des na yàlla mas ta wàcc kenn jógee ci kaw lu may béyti ci fi la yem kenn mas ta jógee ci suuf lu may fi nga yem day tukki gi ne te suma kanam yoo xam ne su ma ci jaay jàllee ñu suuf ko la kay xarab la ci la kay mooy nag mu uus di dem di dem di dem di dem ba ca kaw ba nga xam ne delloo na ndox lii mu delloo suuf nii suuf mu delloo lu nekk mu safara lay tàng bi safara ba dara dellu ca lu may la nga xam ne moom mooy la nekkoon rek mu dellu ci la mu nekkoon muy leer googa nga xam ne moom la wax ne nuuru awwaluhu nuuru wujudan wa asluhu usulun wal anjaal mu ne dem na ba jege yoonu yàlla li nga xam ne ni xalam ak ñaari xajjam noonu la ñuy taxalaat joo wala lu gën a jege loola bàyyi mu ne comme ñaari jëm nekk dafa foofu la ko joxee dina lislaam kooku kooku la ko joxee julli rek ne mu daal di indi ko diine jooju mu nga xam ne yàlla yónni ko malaaka yónni ko diggante ak yéen foofu la ko yëpp kii wane ñetti xam-xam yoo xam ne mu ne benn yu ma xamal xamal bi nag moom ko xamal kenn benn bi nag doxal moom lay dogal ñëpp benn mu daal dem daal di seet ca bañaan nga xam ne weer wi ci weeru ba jëpp ci la amoon weeru rajab ci la rañaan ci la yàlla indi ay wàcc ne ci yàlla ma julli weeru rajab ci la boobu loolu moo jiitu gi rek gi doon na ko juróom benn weer rajab ba rabi yi la woon gi rajab moom itam ci lañ mayee Aminatu Abdoulaye bañ ko ko jël rajab itam ci lañu yàlla mayee Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu moom mi nga xam ne moom mooy wax ne fa ngeen ci Ibrahima ndax ay laalu laalu balaalu laalu yéen a jamaalu maa ngi ndokkee Ibrahima ndax weeram teew na ñu ne ko ah yow moo laa Cheikh Ibrahima yow kay sa weer mooy weeru la jëm comme nag ngay ngay ngay ndokkee sa bopp waaye li nga teewoo fukki rajab mooy ci nag mooy sosub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ mayee Abdoulaye Abdoulaye ci weeru la jëm lañ ko def di ko dalee ba rajab ba ci rabi yi noonu mooy juróom-ñeenti weer yi yonent def ci biiram day rek day kon bale mooy mooy baatin bi bii mooy daay bi rek day moo tax ba mu génnee ca rabi la woon ca fukki fan ak ñaar mu daal di fee baax naa ngi jokkal sama bopp ndax ma wettee ma amee ba loolu amee ñoom démb ko ñoom tey ñoom ñaar ñëpp kii rabi la woon la la juddu kii rek kii rajal la juddu rabi la woon la ci rajal juróom-ñeenti weer la kii ci fukki fan ak ñaar ci rabi la woon ci la ci la ci la juddu ci fukki fan ak ñaar ci rabi la woon ci la wujju borom bis ci mooy mooy bis ci day am réveil bu la jullit li gën ci moom mooy mooy teewal ko yàlla may mu koy sant di ko fàttaliku natt yi nga xam ne moom ko yaa teg mu di ko fàtte rek léegi moo tax Mawalana Cheikh Ibrahima itam rab yi la woon fukki ci la gën a boromam juróom-ñeenti weer mu ne bët bu set weer bu nekk dina gis kenn ci yonent yi ko dana ci aadama bi ci yonent yàlla Isaa ñu ne ko fu ne fu ngeen doon xale ñu mu ne ba damay juróom-ñeenti weer ñoom ñëpp daal di mu mu ne booba ne foofu la gisee yàlla ko ngi mu xamee mu ne foofa yëpp dara amul lu ko wane ne du biir bu métti du boobu biir bu rëy du feebar du waaye daal gis na ne weer aada yi nga xam jigéen nga gis gisatu ko rek ba juróom-ñeenti weer yi ma koy gis na ay jigéen yoo xëy dañoo gudd ba mel ay dañoo mel waaye dañoo rafet ba mel ni benn aada bu nga def ngeen ma xamee ñoo ko dañoo ñëw pour ndokkee da yaay seen doo seen sange ma njëkk ma mujj ko yéen mu ne dafa am dara lu ko fi lu ko lu mu itteewoo mu jóg di kii rek jumba xam ci wetu ne ñoo daal di fàtte ko rek sang bi daa ne cëpp sallallahu alayhi wa sallam daal di ba mu juddoo ñi mu juddoo nuyoo da ñoom xëy na la xale yi juddoo ba mu juddoo ci xale suy juddoo deret lay àndal mu am def benn perte deret waaye ñenn àndal ba mu juddoo xale suy juddoo dafay jooy moom su jooyul sax docteur dañ fekk nañ ñu defal ko ko gët nañ ko daal di ordu ko daal di daal di daal di tusuree ko rek ba mu juddoo li mu njëkk a def mooy dafa sujjoot ba mu ne xale bi ñaari woo nga xam ne xam ne borom la nga lay sujjootee rek ba mu sujjootee ba mu siggee xool ci jaww ci mi nekk kon yàlla yi dara lu may asamaan bàyyi ne lu tax ku kowee lu kowee rek la naram gis ne moo tax nag asamaan bi mi nekk kon yi ci kaw àddina bi asamaan yi ñu gën a kowee moo tax mu juddoo ca kaw rek la doon xool noonu rek

ndekete yow malaaka yi ñu leen wuyu leen ko ci jaww ji ndax ndax ndax asamaan taal tabe ci kaw xeetam yóbbu leen ko ci géej gi ndax xeetam ko ci ci lab yóbbu leen ko ci jéeri ji ndax noonu ndax ndax gàncax sax mu ne noonu ñu daal yóbbu ko daal di reçu koy may mu daal di kontaan nag ba loolu amee moom yonent moom sallallahu alayhi wa sallam aminatu moom nga xam ne andi na doom joo xam ne yonent yàlla Isa li muy foor foor indiwul doom gi mel noonu doom jooju a xam ne mooy yonent Yàlla Isaa yaayam Mariama tudd Mariama mooy jaamukat yàlla a seen ci seen lakk muy yaa baayam daal indi sa rek ne su ma amee doom ñoo koy jox jaamukaay yàlla bi rek day liggéey benn liggéey àddina waaye ku nekk juddu ci mu daal di ñëw laxas ko ne sa saag de baax na waaye jigéen baax baax man nag dama ne sa mu doon jigéen mu doon góor ndax ma ma jox jox ko kaay bi ba ñu jox ko bàyyi taxam Sakariya mu yar ko ci néegam amul parce que gis góor sàkkaat laa fukki at ak fukki at ak ñeent ba nga xamee ne gis na mbarik rek mu dem di sangu yàlla daal di ebal daal di jàpp ci loxom boobu loxom bu boobee di ëpp ko rek mu daal di biir wasin ci saasi ba mu wasinee daal di jël doom ji daal di ñëw ñu ko ah, am ay daf ngay daf nga yow kat dañ daan wax ne yaay jigéenam Sakariya ci maanu foo jëlee doom yoo xam ne amul bàyyi bàyyi wax nañ ko def mu laaj leen ko ñu ne ko ku ne bu juddu kenn kenn faragu ko ñu koy laaj muy leen laaj yéen ko rek Isa daal di jóg taxaw yëkkati baaraam nii ne inni Abdullahi aataani al-kitaaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaani bis-salaati waz-zakaati maa kuntu hayyan jabat wa faran bi waalidati wa lam yakun jabaaran shaqiyyan wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayyan message bi yëpp dañu bind rek di wax ne ko mu ne man jaamu yàlla xamoon ne ne aw xeetam dina wax ne dañ ko bokkaale moo tax moom mu naan jaamu yàlla laa la njëkk a wax ne man jaamu yàlla laa moo tax bu ko yàlla bàyyi mu ne yow nag xiyaamati moom la ñuy njëkk a xisaab moo gën a tax xisaab ñu taxawal ko ci kanam àddina bi yëpp ne ko eh sax lu ma rewoon li nga wax ne amoon ba am ne ne ne ne ne doom amul waxut bàyyam mu ne ko eh ay sax lu ma rewoon ah ah topp tamit naa si tax ñu ne yow yow yaa ngi fi dundee yow yaa wax sa xeet ne leen ñu jaamul yaa ak sa ndey mu dox ba ñëpp gis ko mu ne mu ne ma qultu lahu illa ma amartani bihi an abdullah rabbi rabbukum wa kuntu abi shay'an ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت رقيبا علي وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانه عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم mu ne ko tudd naa sax seen yow sama borom naka laay waxee loo xam ne xawu ko man tey diine la man fa nekk dama leen wax jaam yàlla jaam nag yàlla boo ma fa jógee nag say jaam lañ soo bëgg a defal say jaam man de loolu laa bëgg la fa def loolu waaye mu ne yonent yàlla Isaa moomu mbooleem ab wàll yu mu ne ab wàll yi bu nekk doon doon nga benn yonent ci yonent yi moo tax ca xare Badar ba nga xamee ne jàpp nañ ñu rey juróom-ñaar fukki jàpp juróom-ñaar mu taal leen ci buntu jumaa ne suñ bilee tisbaar dañu lañ ba nga xamee ne loolu la ba ngeen moom ay saabaam mu ne leen lu ngeen xam ci ñu xasaw ñi Abubakar Sadiq ne ko ñii day dañoo bon rek waaye say mbokk lañ baal leen rek te na jël ci ñoom njot loo xam ne su mën ko mu ne ko say mbokk lañ dañoo sa xaar wax ne ko ñii ñooy boppi xéefar ñii ñoo tax ñu génn Makka ñii su fekk rek ñii ci kaw suuf ak njub du am mu ne ko ñoo ñoo ñoo ñoo koo xam ne tamit daal bañ génn Makka ñëw fekk ñu fiñ gàddaay ci Medina ñëw fekk ñu Medina rey leen ñoom ñëpp ku bokk ci Bani Haasim gëna ku bokk ci Bani Haasim joxal Ali mu rey ko ku bokk ci ba ba bani kii Xabs joxal joxal Omar jox ko ko man ma rey ko Abubakar nag problème dama ko ku bokk ci bii dem jox ko ko man ma rey ko ak day yoon bi ne xale boobu mooy Adam mu dellu ci néeg bi ñoom ñëpp ñuy werante ndax xalaati àll bi lay dox ah Aboubacar lay def ñu ne xalaati Omar lay def bi mu ñëwee mais def naa lii ñu ne xaaral loolu la Aboubacar wax mu ne ko ñu xasaw ñii kenn du fi jógee tey lu may nga joxe ñaar kili ñeent ñaar kili bi door su fekkee ne ci benn Haasim ne nag ñeenti kili bi door loolu daal di jënd noonu leen waxee ku joxe dañ koy jot sa bopp rek ba nga xam ne doomam ji nga kii korom bi nga xeex moom moo takkoon Zeynab bi nga xam ne moom mooy abalaate yi moom nag bokkoon na ci moom nag mu ne ko kooku moom defe nañ ko rey rek waaye bañ nekk ci jumaa ja di julli ñu nekk ba sujjoot Zeynabu daal di ñëw taxaw ci jàkka ja daal di xaaju ci ceeb mu ne donc mu ne mu ne baal naa abalaate yi abalaate yi ko kenn rey abalaate yi ko kenn rey bu yor ci bi seen ma nee ne lu ma dégg bi yow sax li nga dégg li ñu wax li ñu dégg Zeynabu sa doom dégg na jëkkëram ñu naan mu nekk tam moom ma kii mu mu ko kenn mu ne ah ku gën a tuuti seen bu sax rey su waxee ku ñuy war a rey ci lislaam mën na ko mën mu jot ko doon ñu bàyyi ko waaye leneen kon na na andi bu mu newee ci ab aas yi aasum ñu yónnee ko mu daal di yónnee ci Zeynab ne ko sa baay daf may laaj daf may laaj alal mu jël caq boo xam ne caqam Xadijat lool daal di jox ko ba seen ba wéyal gisee caq ko daal di joxe ne tey ngeen ko jox ak ca xam ak jaar-jaaram ñoo ko dugal ci lislaam mu ne naa fett dugguma ci lislaam yonent ne bàyyi leen ko bañ ko bàyyee waaye nag ñu ne ba bàyyi gannaaw ba mu demee ba Makka mu réglé ay problème daal di fay ay problème dëgg dafa amoon ay borom yu ne su toogee ci yooyu dañoo ànd fa daw moo tax mu daal di ñëw daal di jéblu ba mu amoon moom moom moom alaasi moom ba nga xamee ne ñoom yonent ñoo ne mu ne topp naa li nga xam ne moom lañ wax naa def li ay Abubakar wax muhimman alquran daal ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra yuriduna an yakuna lahu nidaa billahi wa malaikatihi wal akhir mu ne ko ab yonent wartu nañ da ngaa wax ne war na doy ñoom ñëpp mu ne nag mu daal di ba nga xamee ne lu am na mu ne ni yonent ko mu ne ab yonent bu nekk wàllu yu bu nekk da am na yonent bu doon yow Abubakar ko doon yow yaa doon yonent yàlla Ibrahima yaa yonent yàlla Ibrahima moo ko doon kan yaa doon yonent yàlla isa bu ko wax ne victoire bi bu may ñëw yi daal ak way tax bi nag bay nekk naa di ndax ak mu ko ya bu Abubakar mu ne ab jullit mu ne gëm yàlla danay nooyal xel ba mel ni dëgg ba mel ni soow kooku mooy kan mooy Abubakar Sadiq mu ne gëm yàlla dem dana dëgëral ko ba mel ni dëgg kooku mooy kan mooy Umar ibn ko ni ko mu ne ko yonent yàlla Nuuh rabb mooy xam ne la laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaara innaka in tadarhum yudillu wa ibaadaka wa laa yalidu illaa faajiran kaffaaran benn mu ne ko kan ak yonent yàlla Moussa moo wax ne rabbinaa tummis alaa amwaatihim wa ashhad alaa quluubihim falaa yu'minuuna hattaa yarawul azaabal aliim moom noonu la noonu la wàll yi doon ak yonent yi ñoom awliyaa yi daal di doon wàll yi loolu moo fi nekk ba léegi rek moo jëlam risaala yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne bay ñu ngi sant yàlla di ndokkeel ci weeru rajab bi nga xam ne ñëw nañ ci màggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ñu waxee moom ne weer wi nga xam ne mooy si sub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye mooy juddu Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi wax ak moom ne li ngeen di Ibrahima la aydalu ilalu badaa bi naazirina jamaalu allahumma salli ala sayyidina